ndeysaan xool leen ma Père Max Mbargane ndeysaan xoolal Père Max Mbargane ndeysaan ah Père a ngay jaayu Père Max Mbargane da ngay jaayu. waa dafa mel ni euh, temps bi jeex na su ma la dageer mooy am victoire par décision arbitrale su ma mais ñun lii baax na ci ñun ndax xale lañu bu na ci yoon ñu ne woon mënuñ ci Lac de Guiers dara mais bala maa gën a prononcé sax nañu xaar ba xam lan la arbitre yi jël mais suma ma juumul temps bi jeex na. mais noo gisee ni li nga xamante ni moom la Siteu daal di bëree. non ñun gis nañ beneen Siteu ndax daraan forcé ñàkk kombaam mais nee naa ko booy dem bay àgg ci benn niveau bi. jaadootul ngay ñëw rek yàq sa combat dem ak mbooloo mi koy topp moo tax ñu ñoo ko téyeloo boppam gis nañ sax ci dernière minute yi mu bëgg a forcer jeexal bëre bi te loolu wóorul làmb looy gën a jëm ci kanam da ngaa war a gën a assurer li ngay def. da ga gis nañ yàgg yàgg si te nga dugg ci biir géew bi benn conversation bu xaw a yàgg loolu doon wax ci te. waaw booba la ko wax mooy da ngay dem latéral mais dangay ngay bàyyi ba jub ci saako yi te loolu baaxul.